malaayka yi ñoo koy womat jëme ko mbugal yi gën a tar gouverneur boobu nag li ci yéeme mooy ci at moom la nu ko toxal ci kiyaan fala yàlla yebal volcan takk ci kaw ca te loolu mooy saahir sa te la muy fekki ëllëg moo gën a metti wal ashabu laaxir asadu abqa maqtul la si xabasa fii ndakaaru yaxludu inda man lahul azkaaru nee na ki ki ci néeg ba ca ndakaaru yàlla mer mu sax ba fawwu inna allasina makaru fi jaysati bima taarabtu bihi li baksati waajahahum baaxin azizun muntaxim min jaksasin bila intihaa bil muntaxim mboolem ñoo fa doon fexal ci jaysati ngir sànk ma ba atum baksasin yàlla def na jëflante naa ñoom ci turam yu tudd al muntaxim inna allasina axrajuni turra buxdan bila intihan unira durra mboolem ku bokk ci ñi ma doon génn ak bañ ma di ma fexeel yàlla teg na leen loolu joxam du jeexati bu faw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 kon xam na ne diine dafa ñëw ngir defar doomu aadama relation li ñuy wax relation horizontale ak relation verticale te mooy diggam ak boroom doomu aadama mooy xidma mooy relation diggam ak nit ñi diggam ak bindeef yi te loolu boo delloo ci alxuraan dangay gis suñu borom di wax ci alxuraan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 sawara ba bicc bicc mu ko tiim daanu ca ñu tabbal ko ci biir sa kamb sawar ga sunu borom musal ko ca qul naa yaa nawar kuunii bardan wa salaaman ala ibrahim loo ko ci yàlla suñu borom faye nag bokk na ca lisaana siddiqin fil aaxirin te mooy bàkk war a fet sëriñ Tuubaa gasolo nañ ko am yar nee na soxna jaar moo ñëw génne ko fa jàpp ci ay mbagam ne duñu yàq sa liggéey moom itam bokk na ca la suñu borom faye lisaana sidqin bi ayaalin turra وهو يجيب من دعا مضطرا واجعل كتابتي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل أكنت لي محجر النفر yonent yàlla noohin ay jege ñaaram dañu ko dëdd woon ba àgg ci di sakki seen noppi ngir bañ a dégg li mu leen di wax wa jaaloo asaabihum fi azanihim wastaxsaw siyaabahum wa asru wastakbaru istikbaaram sunu borom digal ko mu defar gaal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 te bew muy muy na muy woote ak rububiyya ak uluhiyya yàlla labal ko moo ñoom mu àndaloo ñëpp ñëpp terale yàlla terale yonent yàlla Muusaa wa alxaytu aleyka mahabbata minni te mooy yàlla suñu ma bëggal ko boppam yàlla yonent yàlla Muusaa sax na ca sayyidunaa Shuaybu ca nattu ya samaaniya xijaj illaa xaliil Sëriñ Tuubaa ñu génne ko réew mi samaaniya xijaj illaa xaliil te bokk na ca la ko ci suñu borom fay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 suñ suñu borom mu door def xattu makka suñu borom jox ko alxuraan wa innahu la lakk laka wa li ko mu def ko muy ci gën a tedd ci yonente yi wa fataha lahu fatahan mubiinan kon sëriñ Touba bi ko ay noonum génne réew mi bokk na ci li ko suñu borom faye mooy jox na ko alxuraan baytu xasa yi ñooy ñooy wër di yëddu kuréel yi bépp kuréel bu njiit bu gis nga nekk ci sunu mbir aw yow ak lu baax ñu maase yow neel seen bi seen aaji faju seen aaji di faju te duñ te xam lan moo lan moo ko def bépp kuréel bu njëddu gis ñu nekk ci sunu mbir naka su dul noona baatindu xasaay bi mooy fenqi seen bopp ya ñu xew-xew ci seen biir te ñu xam lan moo ko def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh